dem sax ba ci joxe ay information te loolee lépp nag maanaam warul ndax yoon daf kay daal di tere jamono ji nag ndawal buur moo war a jël ay matukaayema yéen a kaay gii di direct news moom mu xëy di wax ne en tout cas li am ba des mooy fukk ak juróom ci ay kaa communautaire daat nañ koy am maanaam fukk ak juróom yooyu ñi nga xamante ni ñoo leen ko wàll xamuñu ko ndax nag duñu daal di jëm ci ab confinement maanaam tëju ci kër yi yéen a kaay gii du l'observateur moom mu xëy dikk ci transmission communautaire ni nga xamante ni moom lay jaaba jonge ci ndakaaru te nag waa Dakar yaakaar ñoom dafa mel ni mbir mi yëngalu leen a maanaam ñoo ngi fowee loo xamante ni musiba ma ba kumba gu rëy mën na cee daal di am yéen kaay gi de di Quotidien moom mu xëy di wax ne transmission communautaire yi nag fa nga xam ne fa la ñuy mujj maanaam di dawante di dawante ko gis jàpp ne am na jàngoro coronavirus te jamono ci maanaam ma ngi bëri ci réew mi yéen kaay gi mu ñu xam la ñu en tout am ba des mooy cas communautaire moo tax ministre bi ñu denk kaaraange réew mi di Aly Ngouille Ndiaye moom nag daat nay tere lépp loo xamante ni dem na ci ay autorisation de circuler yéen kaay gi ñu fekk fekk fa docteur Aloyse Waly Diouf moom nag la mu xamle ne nag cas communautaire yi maanaam mooy njombe gi mooy giraawaali gi en tout cas li am ba des mooy jamono ji xeex bi nag dafay doog di doora maanaam guerre bi yéen a kaay gi du l'observateur mu ñu xamal naa ñu njiitu réew mi di président Macky Sall moom nag daan nay génne armée bi ngir nag lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum séddale dund gi yéen a kaay gi di réew mi quotidien moom mu xëy di ñu xamal naa ñu en tout cas jàngoroy coronavirus ji maa ngi law ndax diwaanu Wakaam lu toll ci fanweer ci ay nit daan nañ ko fay am waaye nag li am ba des mooy Sénégal Sénégal ci nag déndu nag CEDEAO Sénégal daal moo si ëpp ay nit ñoo xamante ni faj nañu leen ba ñu wér yéen kaay gii de la témoin moom mu xëy di ñu xamal naan ñu ministre bi ñu dénk wàllu wér gi yaram gi daat nay wax ne bépp sénégalais boo xamante ni faatu nga bitim réew dootuñu la indi ci réew mi ndax dañuy bañ jàngoroy coronavirus ji maanaam wàllaate gi di gën a yaatu yéen kaay gii di Vox Populi mu ñu xamal ñu lu jëm ci wàllum chloroquine Sénégal nag jamono ji lu toll si juróom-ñaari téeméer ci ay dose daan nañu koy am ba pare nag di xaar toll si ñetti junni ci ay dose ndax nag chloroquine bi ñëpp gis nañ maanaam baax na ni waa kin bi yéen a kaay gii wal fajiri ñu fekk fa nag waa LD debout ñoom nag d'accordu ñu benn yoona ci Mansour fay muy séddale li nga xamante ni maanaam moom mooy dund gi ndax ñoom daal seen xel dalu ci benn yoona yéen a kaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal la ñu Sénégal nag ginnaaw bi mu bàyyee Hissène Habré mu ñibbi kërama lu toll si diirub ñaari weer tax na nag ñi nga xam ne ñoo loru ci mbiri Hissène Habré ñoom nag li ñuy sàkku maanaam nag bu ñaari weer yi matee Hissène Habré daal di delluwaat ca kaso ba yéen a kaay gii di l'observateur ji ma ngi Saba jonge diggante Almadi ak Wakam yéen a kaay gii di laas moom mu xëy di ñu xamal nañu waa Amnesty International ñoom nag nee nañu daal Sénégal dafay jalgati àq ak yelleefu doomu aadama ndax li nga xamante ni moom la ñu gis tëj ay politiciens tëj ay activistes maanaam di tas ay manifestations ba pare tamit ñoom nee nañu daal li nga xamante ni mooy Khalifa Sall ak Karim Wade mi ñu génn ci élection présidentielle 2019 yi loolee tegewul fenn yéen a kaay gii di Les Échos moom mu xëy tënk kàddu yi ne waa bi ñoom zéro la Sénégal ndax nag nee nañu daal Sénégal wàccoowul ak li nga xam ne mooy àq ak yelleef doomu aadama saa su dafa koy football maanaam di ko daal di jalgati yéen kaay gii du source a moom daal di ñuy xëy nag génne ñu Dakar yóbbu ñu diwaanu Touba moom mu ñuy xamal lan ñu moom journal bi nee na dafa am benn maçon boo xamante ni da doon jaay muus muus di jaay mbong mbong lu ndax nag moom maçon bi ci biir këram da doon bay li nga xam ne maanaam mooy yamba maanaam toolub yamba ci boppam la maçon bi am ci biir këram moom nag ay atam toll na si ñeent fukki at ak ñett jamono ji ma ngi ci ab garda wii quartier nag Guédé ci Touba la doon bayee li nga xamante ni maanaam mooy mooy yàmbaa ji yéen a kaay gi moom nag daal xëy wax ci li nga xamante mooy faatuk Iba Thiam mooy ndaje mi nga xamante doomu nag ay kilifa riis am doole lool ci réew ñoo ko doon amal ba Iba Thiam ñàkk ci bakkanam journal bi nee am na benn policier boo xamante moom jamono ji teg nañu ko loxo ndax policier boobee dañu koo fay lu ci vingt mille francs mu daal jël xale yi mbogo mbogo leen tey ji ñu daal di janoo ak procureur journal bi nee na la ñu leen di toppee maanaam mooy jëfandikoo drogue ak nag nit nekk ci ay jafe-jafe maanaam ñu bañ koo wattu yéen kaay gi di enquête moom mu xëy di xam le ne autopsie bi nag li nga xam ne wane na ko mooy overdose maanaam nag jël nag drogue boo xamante ni daal dafa ëpp yéen kaay gi di libération moom nag nee na enquête bi daal li nga xamante ni jot na ko wane daat nay doy waar loola ndax ki nga xam ne mooy looti ba moom nag bi ñu ko laajee na ko nag Iba Thiam bi nga xamante ni daal ma ngi xëm ak ximaliku ana nan nga doxalee moom nee na da ko doon maase ànd ak ak dal ba mu yàgg nag mu ne man mujj gi sax damaa xamutudoon nag fan laa nekk yéene gi ba tey nee na benn waay bu ñuy wax neex boo ko ca mbir ma moom ba ñu ko laajee la mu xamle nee na ñoom ñëpp ñoo jël ci drogue bi